alhamdulillahi alladi manna ala ibadihi bi bixsati xayril mursalin yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walxikma wa in kaanu min qabli la fi dalalin mubin wa sallallahu wa sallama ala almabuis alhuda sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alghuril mayamin wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi din amma baad rabbi shrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli ayyuhal mushaahiduuna alkiram fi kulli makaan nuxayikum bi taxiyati islaam wa naqulu lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokk yi ñuy seetaan fu ngeen mën a nekk ci àdduna bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar bu baax a baax di ñaan jamono bi ñuy àddoo ngeen ñuy dégg suñu kàddu di leen fekk ci jàmm ginnaaw loolu yéen a ngi ci seen émission leeru diine ngeen ci ànd ak seen mbokk Seyda Aminata Dia Fall fii ci TFM religion tey nag macha allahu rabbi ñu dalalaat fii suñu sëriñ dalalaat fi macha allahu rabbi suñu imam dalal fi koo xamante ne nii kenn la ci ñun mais di borom xam-xam macha allahu rabbi ñu bëgg bokk ak moom ci at bu bees bii nga xamante ne nii ñu ngi koy dëgmal naka la ci jullit war a duggee ak ban taxawaay la jullit war am ci at bu jeex ak at bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy dugg nan la ci jullit wara mel lool lañ bëgg a waxtaanee tey mais bala ñu cee xuus macha allahu rabbi dañuy jox imam rek mu daal di nuyoo imam ziar di la dalalaat ci sa émission leeru diine waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sayidati aminatul fadli ñuy wax alhamdulillahi waxda alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya bacdah sayidina wa maulana muhammadin alfatixi alxaatimi annasiri alhaadi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim wa radiya allahumma an ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala hawla wala quwwata illa billahi alaliyi alazim ya himmata cheikh uhduri lana bi hada almahdari waltaatifi binadratin taati lana bizzafari asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu nuyu mboolem auditeur auditrice yi nga xamante ni mhm. dañuy seetaan sa émission bu am solo bi macha allahu taala mhm. ñu ngi leen di tatagal ñoom ñëpp di leen wàccee seen wàccuwaay mhm. ci sa barke di wax ñëpp nañu dal ak jàmm comme ni nga ko ñaanee mhm. émission bi fekk ñëpp ci jàmm ak salaam saydati aminatul fadli macha allah imam ñu leen di fàttali rek euh, c'est oustaz euh, Omar Kane wala imam boog ban nga ban lañ ci ban lañ ci wax Omar Diagne rek waaw <laughs> ah, imam la oustaz la macha allah ci euh, wàcce boppam rek moom moo waral loolu lépp waaye àndaloo rek imam dañuy wax ne macha allahu rabbi jamono bu ne dafa am luy xew mhm. te su xewee nit ñëpp macha allahu rabbi dinañ ko yëg mhm. nañ bëgg xam naka lañ ci war a toogee rawatina en tant que ku ñuy tuddee jullit ndax ñun dañuy wax ne 31 décembre en général dañu foog na ñun suñu at foofu la tënku te bu ñu xoolee ba xool ñun ñi nga xamante ne ay jullit lañu am na ci at boo xamante ne ca lañu war a compter même si bu fekkee ne nag kenn ku nekk sax sa këyitu judd ci euh, atu tubaab bi ci lañ koy compter mais war nga xam nag macha allahu rabbi atu jullit yi naka lay doxee mais kuy naka la war a comporter bala ñoo ñëw ci at bu bees nuñ ciy duggee tabaarakallaahu comme ni nga ko waxee am na solo jullit yi dañuy am dàkkantal bu lay xamante ni yàlla moo leen ko dàkkantale yenent yàlla muhammadin alayhi salaatu wassalaam am njàngale bu mu jàngale bàyyi fi jullit yépp nag ci loolu la ñuy tënku lu jiitu lislaam jullit yi xamoon nañu dat xam nañu weer ak heure lépp xam nañ ko ndax yàlla sax ci boppam dafay wax ci alquran yi inna iddati shuhuri inda allahi ithna achara weer nag ak moroomam bu jeexee bamu ak fukki at ak ak ñaar ci la ñuy wax at mais da ngay dégg ñu naan miilaadiya mooy juddug nabiyullahi isa ci la nasraan yi ñoom di def seen date. ci nga dégg ñu naan tey jii ñu ngi ci deux mille dix huit wala ñu naan deux mille dix neuf. loolu noonu ci miladiya. bi nga xamante ne nag yonent yàlla muhammadin alayhi salaatu wa salaam gàddaay na ba ñëw madinatul munawwara gàddaayam gu rëy googu. jullit yi dañoo toog ba ci yàgg ku mel ni Seydina Omar ibn Khattab ci xalaatam bu rëy bi ci xelam mu rëy mu ko yàlla mayoon macha allah. mu ni ñun tamit war nañoo mën a def suñu dat ci wax ju gudd ci la ñu def nag ñu ni dat bi jullit yi war a jël daal di ci référé wu mi nga xamante ni kenn du ci juum mooy datu gàddaay yonent yàlla muhammadin alayhi salaam moo tax nga dégg ñu naan hijriya mm. gàddaay googu nag bi yonent bi gàddaayee jóge makkatal mukarrama ñëw madinatu munawwara mhm. ren gii ñu nekk mhm. mooy junni at mhm. ak ñeenti téeméer ak ñeen fukk mm. gannaaw yeneen yonent yàlla muhammadin alayhi salaatu salaam googu mu amoon mooy 1440 dëgg la léegi nag loolu nga ci déggee que bis bu dem dootul ñëwaat mm. weer wu dem dootul ñëwaat at bu jeex dootul ñëwaat mm. kon yow suñ la programmé la woon sa dund ñu ni téeméeri at ak fukk ak ngeent nga war a dund ñeent fukki at dem na ci kon yëg nga ni sa dund gi li ci des matatul téeméeri at ak fukk ak ñeent parce que comme loolu lañ la programmé loon donc am na lu weesu loo xamante ni dootul ñëwaat abadan yàlla nag mën na bindal nit ni téeméeri at ak fukk ak ñeent la war a dund nit ki dem ba àgg ci yàlla yokkal ko ay atam. Hmm, mën na nekk mën na nekk ñu programmé woon téeméer. ñu programmé woon téeméer daf ko ak ñeent. Mhm. ñu defal ko téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent. Hmm, loolu lu koy waral. li koy waral mooy yàlla moo am sañ-sañu. Mhm. def lu ko neex ci nguuram gi. Mm, yafaalu maa yasha. yafaalu maa yasha. Uh-huh. wala tamit nga ni yamxu llahu maa yasha. Uh-huh, wa yuthabitu. Uh-huh. wala wa yuthbitu. wa indahu ilmu lkitab. dëgg la yamxu llahu maa yasha. te ci e, kattanam googu ci mbaaxam googu. am na jëf yu baax yoo xamante ni su ko nit ki defee. yàlla mën na ko yokkal dundam. Mm. ba ci sarax. ba ci. yenn yi nga xamante ni ci ñaan mhm. ba yàlla yokkal la sa dund loolu xanaa promotion lañ koy tuddee lañ koy tuddee te loolu dafa am ci yàlla subhanahu wa taala mm. léegi nag borom xam-xam yi dafa am ñoom lu ñuy waxe mhm. mais ci wàll googu nag yokk googu mais est-ce que nit mën na def lu tax ñu wàññi aussi dundam loolu mën na ne am na sax nit ñoo xamante ne ñoom seen bopp ñooy wàññi seen dund uh-huh. waaw am na ma la yàlla de mhm. waaye nit ki mën na wàññi dundam mm. waaw ci naka noonu imam mag ñi dem na ci bari na ci ñoo xamante ni. Mhm. yàlla daf leen di wax ni dañuy dund téeméeri at ak ñeent. Mhm. ñoom. Mhm. ñu dem ba doyal ci adduna bi ndax gis. yu bon yi fi nekk te mënuñu ko dindi. Mm. gis yi nga xamante ni ñu daal di def tawassul ci yàlla. Mm. ñaan def tawassul ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa mm. ni yàlla li ma dese ci dund naa ko dund barzax. ñu préféré bàyyi dund. adduna bi dem préféré bàyyi dund adduna bi dem barzax. tëdd foofu lees ci seen i aj ñun ñu bëgg dund àdduna ak ak ak àdduna rek ñun xam nga ñun ñun moom bëgg àdduna mooy suñu premier mm, mm, mm. suñu premier titre mais mag ñi am na ci ñoo xamante ni àgg nañ foofu ci bëgg jege yàlla subhanahu wa taala parce que nag mm-hmm. yonent yàlla Muhammadin alayhi salatu wassalaam bul fàtte bañ ko waxee ni ko jox nañ la mafatixu mm-hmm. euh, xazainu dunia wal xulda fiiha mu dajeeg abalu babata mu ne ko sama borom yàlla subhaanahu wa taala jox na ma caabi mbandu oori wurus yi nekk ci adduna bi yëpp ak des ci adduna lu ma neex dëgg la ba saa yu ma neexee ma dund ci adduna ba saa yu ma neexee ma génn adduna moom yonent bi sallallahu moom yonent ci yàlla Muhammadin alayhi salaam mhm. Aba Ali Baba daf ne ko ah yonent ci alhamdulilah kon kay tànn nañu yow nga nekk ak ñun mu ni déedéet mbaadu texe nañu waaw ndax kilifa gu loolu njaboot moom da daan tay moom lépp neex mu ni man tànn naa dajeeg sama borom macha allah yonent yàlla Muhammadin sallallahu alayhi a jege boromam moo ko gënal la muy toog fi hmm. te nag loolu nag ci mhm. ci niveau bëgg a jege yàlla la. Mm, bëgg a yàlla ba bëgg a dem sax ñun nag suñu xalaat yi xalaatuñ ko lool. waaw loolu la ñuy wax yàlla boo xaritoog moom dalay teel a jël. dalay teel a jël dañuy wax lool de. waaye nag <laughs> ñun moom comme dañoo bari ay bàkkaar. Mhm. dañuy wax ni dañuy ñaan yàlla gudd fan. ngir ñu mën a tuub. Mhm. yu bari yi nga xamante ni. Mhm. weesu woon na ak suñu jëf yu baax yi. gën a bari suñu jëf yu bon yi. dëgg la ndax am na benn âge boo xamante ni soo fa xasee ba àgg ci dund. à sagesse lañ koy tuddee. yu bari ci yu caaxaan dootu la neex. Mhm. parce que sax sa cër sax moo ko dul mënati. waaw da koy dépassé da nga koy dépassé. su ko defee nag gudd fan googu. Mhm. moom la wala fi daan wax ne fetalu ñaari gémmiñ la. Mhm. da nga ciy tooñ balu si euh, da ciy tooñ. dëgg la mais balu ci. ko defee gudd fan moom baax na lool. te jar nay ñaan ah, tamit yàlla nañ ko yàlla defal yàlla nañ ko yàlla may bi jaay Seydou Diouf. sallallahu alayhi wa sallam ci li nga doon ñaan mag ñi daan nañu ñaan benn ñaan. di wax ni allahumma. maa amiltum min amalin fi sanati al maadiya li nga xamante ne yow sama borom. jëf naa ko ci ay jëf ci at bi nga xamante ne dafa paase walam tardahu te gërëmoo ko yow yàlla subhaanahu wa taala wa nasiituhu te fàtte naa ko walam tansahu te yow fàttewuloo ko yow yàlla xanaa nga yóbbu ma ci. Mhm. Eh, sa qasida bu neex ba. lam yansahul malakaani xiina nasitahu <laughs> bal asbatahu asbatahu wa anta laahi talab macha allah. <laughs> doomu aadama bi dafay fàtte. dëgg la moo tax yàlla tuddee ko mhm. fàttekat bi. insaan al insaan. Mhm. mu ni man fàtte naa ko waaye yow yàlla subhanahu wa taala fàtte woo ko. mais seen malaayika yi tamit fàtte wuñ ko. te nag wa hakamtu anni maa qudratika ala uqubati dëgg la moom yàlla subhanahu wa taala ci kattanam gu rëy googu ak ci sañ-sañam atte na ni képp koo xamante ne def nga lu bon mbugal ñeel na la dëgg la alquran lu mu ko waxee woon man amila suu'an yujza bihi ku def lu ñaaw lu bon danañ la ka fay dëgg la mag ñi dañ daan wax ne nag aaya boobu moo gën a tiitlu ci aaya alquran yi man amila suu'an yujza bihi ku def lu bon rek danañ la ko fay man asaa fa alayha man asaa fa alayha wala boog man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha dëgg la wa daawtani ila tawba baada jaraati alayk yow nag woo nga ma ubbi nga sa buntu tuub yëpp gannaaw bu ma defee lu bon waaye man daanaka aw ma jotu ñëw di tuub tey nag at bi moom passé na allahumma ey eh yow sama borom inni astaghfiruka man yàlla maa ngi lay jéggalu minhu faghfir li loolu ma defoon jéggal ma ko dëgg la ñaan gii nii danañ koy ñaan bu at bi jeexee nga xamante ni lépp loo amoon ci ay ñaawteef yàlla mën na la ko jéggal waaye allahumma wa ma amiltu min amalin tardaahu wa waadtani alayhi thawab lépp loo xamante ne yow yàlla jëfoon naa ko ci at bi muy jëf yu baax yoo xamante ne yow digal nga ma ci ni danga ma ci fay wal xufraan dig ma ci jéggal fa taqabalhu min nii nangul ma ko lépp lu ma mës a jëf rek nangul ma jëf jooju wala taqta rajai minka bul dagg mukk sama yaakaar bi ma am ci yow mooy bu ko dog yaa karimu yaa arhamar rahimin ñaan gi danañ ko ñaane ñaan nag dafay am timbre mooy li ma fi wax li yëpp mhm. da ngay jiital salaatu ala nabi yi mhm. tëjee ko salaatu ala nabi yi mm, jaare ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaare ko ci yonent yàlla moom mooy buntu yàlla bi subhanahu wa taala dëgg la du jaar ci yàlla wala nga àgg ci yàlla te jaaroo ci yonent yàlla mm-hmm. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. Mm-hmm. wax nañ ni képp ku jàng ñaan gii seytaane dafay wax ni at bi yëpp top naa kii di ko di sonn ci moom benn waxtu rek mu yàq li ma liggéeyoon lépp. Hmm. kon ñaan gi jar nay. Ah, jar na ñaan ko mën solo macha allah mais imaam nag eh, comme ni nga ko waxee nii. am na ah. ci ñi nga xamante ne macha allah rabbi hmm. sama genre gi. Hmm. nga xamante ne ñoom du ñu bàyyiwu ñu xel seen dund. waaw ndax lii nga fi wax nii ku bàyyi xel dund uh-huh. ak bàyyi xel diggante ak boroomam ak uh-huh. kii def bàkkaar de bàyyi xel na mi ngi def bàkkaar uh-huh. am na ñi nga xamante ne toll nañ ci dimension boo xamante ne ci seen dund ñoom xàmmeewuñu bàkkaar def lu baax ak def safaan xàmmeewuñ ko ñoom nañ ne dañoo topp ba lu ñu tuddee mbax mi rek est kon kooku dina am am bàyyi xelu ne maa ngi génn ci at di def évaluation di évaluer dundam bay tala toog di ñaan yàlla lii waaw nit ki nag moom wax dëgg nag mm-hmm. benn noy bu su dee nit ku conscience la mhm. conscience am boobu war na ko yóbbu mu xam ni noyyi boobu génn wàññi na dara ci dundam mm. waxuma nag mhm. ñu naan benn heure mhm. walla benn jour wala benn semaine wala benn weer wala benn at dëgg la ku conscience sul nag moom mooy rek koo xamante ni yaa ngi ci fiiraange seytaane jàpp na la ndax adduna bi bu fekkente ni yow yaa ngi gis ana sa yaay màggat na léegi su mm. fekkente ne mi ngi dund mm, dëgg la moom ana yaayam mm-hmm. gisoo ko wala màggat na xobidaas na su fekkee génnagul àdduna su mm-hmm. mi ngi dund mm-hmm. ana sa baay màggat na wala boog dundatul ana sa baayi baay sa maam bu góor bi jur sa baay nga xool ni génération par génération am na ñoo xamante ne nekkatuñ fi danga leen di dégg rek dëgg la yow nga jàpp sa bopp yow da nga fiy nekk éternellement ba mhm. def lépp lu la neex mhm. kooku mooy ku xelwul mooy nit koo xamante ni mhm. euh, ñu delluwaat ci xasida ba wa ruuxu fiika wadiatun udiataha sa taruddaha bi raghmi minka wa tuslabu su fekkente ni yow wóor na la ni ruux bi nga am dañ la ko dénk dund gi dañ la ko abal kese te da nga fiy war nga bàyyi xel loolu mm-hmm. su fekkee ne koo xamante ne nag xelam bàyyiwu ko ci loolu. Mm-hmm. kooku mi ngi nekk ci suñu maam Seex Seydi El Hadji Malick di wax araak nasiital mawt wal mawtu mawridun fa li kulli min bahril mamaati nasiibun gis nga macha allah. tabaarakallah su ko defee nit ki. <laughs> Mm-hmm. war naa bàyyi xel. jamono bu nekk. Euh, dee mi ngi ci kanam. la. wala boog. nga defar sa adduna comme ni nga ko waxee woon. ba nga yaakaar ne yow dootoo fi jógati. yaamal li dunyaaka ka annaka taishu abadan loolu lan moo la koy may mooy nga jël sa tànk teg ko ci sunna yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallama xool doxinu saxaaba yi ak taabiina yi awliyaullahi taala yi muqarrabina yi saalihina yi fi ñu jaar nga jaar foofu bu ko defee yow dootoo amati dara am na ñaan boo xamante ne bi ma ñu wax léegi moom moo nekk duaa axiru sana mais question bu may ñëwaat mooy bu ñu dugg ci at xam nga génn nañ ci at mhm. évaluer nga sa mhm. bopp xam na yow def nga lii ci ay bàkkaar mhm. càmbar sa bopp toog ak sa borom ndax dañu wax ne kenn ku nekk ñaar mën nañu bañ a xam mais boo toogee ak sa njegenaay xam nga li nga def ci at mi ci lu baax li nga fi def ci ay safaan tamit xam nga ko fàtte fàttelu moom moo fi ne mais fàtte xaju fi imam kon nag bu ñu duggee li nga xamante ne moom mooy at bu bees en tant que jullit nga jéggalu ba pare dëgmal at est-ce que war nga tàmbali at ci ay bàkkaar bu fekkee waxuma sa bàkkaar ndax bàkkaar dafa nekk loo dafa sew. Mhm. mais def loo xamante ne teg nga ci sa bët fàtte xajagu fi nga mhm. tey di di di def bàkkaar. waaw kay foofu mag ñi tamit bàyyi dara mu mu neen. Mhm. dañoo demaat indi benn lu ci yàlla mi nga xamante ni moom kese moo fi nekk. dëgg la da ngay jiital. salaatu ala nabi yi ko waxee woon. Mm. nga jàng ñaan gi dëgg la allahumma anta al abadiyu al qadimu al awalu wa ala fadlika al azimi wa juudika al muawalu wa hada aamun jadidun qad aqbala nasaluka al ismata fiihi min alcheytani wa awliyaihi wa junuudihi wal awnu ala hadihi nafsi al amaarati bissuu wal ishtigaal bi maa yuqarribuni ilayka zulfa yaa dal jalaali wal mu ni lan eyo suma borom allahumma anta al abadiyu al qadimu yow yàlla yow yay ki nga xamante ni yaa fi sax dakk yaa jiitu te sa jiitu ga amul commencement xam nga yàlla dañu wax ni jëkkam ga bañ na luy nuroog ab dooru yàlla amul commencement mm-hmm. bu ñu la laajee yàlla lan la tële mm-hmm. <laughs> alxaaji ibrahima sakho radiallahu anhu mm-hmm. mu ne yàlla am na lu mu tëlee ga yi yëpp taf <laughs> waaw mu ne yàlla tële na sosu alors sosuwul alxaadisu waaw sosu uh-huh. yàlla tële na loolu moo tax njëkkam nga bañ na luy nuroog ab dooru mu jëm nga bañ na fu mu yam mooy buur mooy buur mhm. nga ne ko allahumma anta al abadiyul qadimu mhm. xam nga at bi bees na ñu ne at bees na dafa mhm. dafa tàmbale ñu ne tey la tàmbale wala suba wala gannaaw suba lay commencé loolu am na fu ñu am na fu muy commencé am na tamit fu muy yem nit tamit kadalik wa ala fadlika al azimi nit ki tamit sa ngëneel lu rëy li wa juudika al muawwal mm. sa am gi yow yàlla subhanahu wa taala mm-hmm. bi nga xamante ni dara mun koo soppi mm-hmm. wa hada aamun jadidun qad aqbala mm. lii kat at bu bees la mi ngi nii jëm mm-hmm. mi ngi dugg si tey lañ ci am benn fan wala tey lañ am ñaari fan wala suba lay commencé nasaluka al ismata fiihi maa ngi la ciy ñaan kaaraange min alcheytaani wa awliyaihi wa junuudihi ci cheytaane mi nga xamante ni mooy noon bi nga xamante ni mooy suñu noon ñu ñëpp ak ay gaayam moom seytaane mooy ñi nga xamante ni ñoom seen liggéey yëpp mooy dimbale seytaane mm, ak ay soldaaram mm-hmm. whatsapp bi ci la bokk. Mm-hmm. facebook bi la bokk. Mm. youtube bi yooyu yëpp junudu seytaane lañ. déedéet kay. aha waaw waaw. Hmm, hmm. télévision yii nga gis nii ñuy seetaan nii. Hmm. ci junudu seytaane lañ ci ay jëmtukaaya. waaw ay seetaan yëpp mooy seetaan ma leen moom. wala aawun nga dimbale ma tamit ala hadihi nafsi al amaarati bissu ci bakkan bi nga xamante ne maa ngi ànd ak moom. mu nekk koo xamante ne du ma diggal lu dul lu bon. la. lan laa lay ñaan pour nga dimbale ma bi maa yuqarribuni zulfa hmm. dara bëgguma ko lu dul lu ma jege jegelu yow mi nga xamante ne yow yaa màgg yaa kawe yow yàlla subhanahu wa taala yaa dal jalali loolu mooy sama ishtigaal hmm. wal ishtigaal bi maa hmm, ma soxlawoo mooy rek yow yàlla subhanahu wa taala imaginel waa ji nga xamante ne lii la ubbee jàpp na ni yàlla nag léegi lay dimbandikoo mag ñi nag ni la ñaan bii dee ko ñaan sa fukki fan yëpp boo ñëwee ba ci fukkeelu fan ba muy ashura ñu indi ci nag ay mbir ni la sum solli zur aaliman summa ghtasil waqtaxil yu mel ni ki yooyu na sum na nga woor ndax ashura gis nañ ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wooroon na ashura am na sax xadis boo xamante ni xadisu silsila sanad bi ci ashura kese nga koy amee mm. guddi ashura ngay dem ci nit ko am sanad bi mm-hmm. mu jox la xadis boobu ci noonu lañ koy donnee macha allah ci lañ la koy jàngale mm-hmm. ci lañ lay jox silsila bi yow nga am silsila mm-hmm. xadis boobu nag am nañu bari ñoo xamante ni eh, tey jii xamuñu ko sax te xadisu ashura la xadisu ashura yi ni ñu bare yàlla moo xam ni mu toll ñu def indi fa nag ay ñaan ni la na nga woor na nga naafila guddi gi mhm. solli sum solli na ngay naafila ay naafila mhm. loolu ngay gàttandoo at bi mm. kon ginnaaw ba nga xamante ne ni euh, def nga ay ñaan. def nga ay ñaan ne yaa ngi dugg ci at mi. at bu bees am na leneen lu la ci xaar loo xam ne luy firndeel na yow mi bàyyi nga xel na at bi yaa ngi ciy dugg. firnde yooyu koor da cee bokk. koor daf ci bokk. ah d'accord mooy woor googu ngay woor. Mhm. ngir wane ni yow mi kat bëgg a jege jege lu gi nga wax ne da ko bëgg a jege yàlla. Mhm. Mhm. naafila yi tamit ku wasjud waqtarib. zul alima na nga dem ziyaar ji borom xam-xam. na jàng xasbuna allahu wa niamal wakiilu ñeenti téeméer ak juróom fukk loolu nag mbir la mbir la ñeenti téeméer ak juróom fukk waaw mhm. baatu almutalsam mhm. moom la ñu dugal foofu jox la ko comme adat mm. am na nag ñuy weddi adat mhm. xam nga munkiruna yi bari nañ fi <laughs> waaye boo demee ba ci yàgg ñu jox la ni la nel wax xasbiya allahu wa niamal wakiil ni'mal mawla wa ni'mal nasir dëgg la yàlla yow kese laa doyloo mhm. yow rek laa bugg mhm. nga nekk sama ndimbal mhm. yow yaa baax yaa baax ci dimbal gis nga ñu ngi lay ñu ngi ñu ngi yokk sa tawxiid ñu ngi lay ñu ngi lay wan ni la yàlla nga war a jël mu nekk sa ki lay jaarale yoon bi mu bëgg nga jaar macha allah ñu indi la benn ñaan bu am solo mu ni subhaanallahi min almizaani mhm. wa muntaha alilmi wa mablaga arrida wa mhm. adada anniami wa zinata alarshi mhm. laa malja'a wa laa manjaa min allahi illa ilayhi subhaanallahi adada alshafci walwatr wa adada kalimaati llahi taammaati kulliha أسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين kii benn ci siixa subhaanallahi min al miizaan yi la mhm, mhm. benn ci séeraam yi la mais séera yi bari nañ mais bii benn ci séera la mhm, yii nag lañ lay sant ni na ko def na nga tusngalu ngir lan sa bët bi bu ci xool lu dul lu dagan dëgg la nanga nga saraxe na nga euh, euh, raay bopp njirim loolu mi ngi lay delloo si ni yow mii kat jëf yu baax yi nga war a def yii ci la bokk te xadis indi na yooyu yëpp yi ma wax ni yëpp xadis indi na ko waxtu yi moo xat moo tax boo ñu waxee ni na nga dem seeti ñu feebar wala sa euh, wasi yaal ak sa famille na nga leen yaatal mooy ni at bi yëpp nii nga war a comporté woo nii la julli di duggee ci at bu bees mais imam ban moment la ñuy xam ne tey ji moom mooy ndax dañuy wax ashura ak tisua ak ah, ashara ah, ak ashura la ñuy wax mm. ndax ci bés bu njëkk juróom-ñeenteel wala si bésu fukkeel bi la tasua mooy juróom-ñeenteelu fan ba mm-hmm. juróom-ñeenteelu fan booba nag ca guddi ga. xam nga bis mi ngi tàmbalee ci guddi. dëgg la bis. ci guddi lay tàmbalee. guddi moo jiitu ba bëccëg. dëgg la comme wa jaalna layla. wa nahaara. wala mhm. euh, euh, wa jaalna layla libaasan. wa mhm. jaalna nahaara. Mhm. maasha gis nga yàlla fu mu waxee rek. guddi moo jiitu ba dëgg la. bisu taasuwaa bi. yonent bi moom wooru ko woon. mais dafa waxoon ni su fi at fekkee. déwén dina ko woor. Ah, ndax kon yéenam la woon yéenam la woon kon jullit bi ko woor mel na ni mottalil nga yonent wa sallam yéene bu mu yéene woon. waaye Ashura bi daf ko daf ko daan woor. Hmm. léegi nag Ashura bi am na leneen lu ci dugg. Hmm. mooy ni. Mhm. gannaaw yu dundug yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi ay at. sëtam bu ñuy wax Seydina Hussein. Mhm. ci lañ ko boom. Hmm, ci bés bi ci bés boobu. mu tolloog Karbala. loolu moo tax Chia yi. Mhm. ñoom li loolu naqar la ci ñoom mhm. dañ ciy sol ay yére yu ñuul ñeneen ñi mhm. ne yonent bi daf ci daan woor mhm. te am na lu tolloog fukki yonent mm. yoo xamante ne ci bisu Ashura boobu ci la leen yàlla xettali mm. comme da am na ay histoire yoo xamante ne nii yu bari bari dund nañ ko ci bisu kii boobu yoo xamante ne tey am na yuñ ci mën a génne ci la daje pour ñëw ci la daje ci la daje macha allah gannaaw loolu na gannaaw Seydina Xuseyn moom Mawlana Cheikhna Sidi Ahmed Tidiane. radiyallahu anhu ñaari fukki fan ak ñaar. ci muharram boobu ci la jot maqaamam xatmiyatu bu rëy boobu. ci bés boobu noonu waaw. nga gis ni kon. weer wi dafa nekk. weer wu bari ay mbir. yonent yi fukki yonent wax naa la. yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daan na ko woor. gannaawam sëtam Xuseyn ci la daanu mais Mawlana na Sidi Ahmed Tidiane mhm. ci weer wi la jote maqaama xatmiyatu mm. nga gis ni kon mhm. ah weer la woo xamante ni at bu bees buy dugg rek mhm. am na yeneen yu muy indaale yoo xamante ni bokkul nekkul woon ci at boobu weesu woon moo tax yow julit bi fu mu la fekk rek na nga beesalaat sa imaanu billahi taala mm-hmm. ndax gëm yàlla dañ koy beesal dafay yokk mm-hmm. dafay wàññeeku mm-hmm. li koy yokk nag bokk na ci tudd yàlla macha allah bokk na ci zikar bokk na ci jàng alquran buñ la waxee ni la bis boobu kat bisu fola wala bisu caaxaan la ñu jox la yow junni li xalaas ni na ko jàng <laughs> xam nga ni yow amoo temps wu caaxaan waaw la amoo temps wu fo tëgg ak fecc yi ñuy gis dafa xaraam ci sharia mais lan moo ci indi kon taajaboon gi ñuy dégg ak ndënd yi ñu ciy foor cere yi nga xamante ne dañ na dañ ko ci togg fu nit mënti nekk ñu ne jour boobu jour lekk cere la te imaam kenn ku nekk na nag xam na ne cere ak diis gi mu diis nit ki nga xamante ne nii daf ko lekk macha allahu rabbi jaamu yàlla yem ca war a def du ko def imaam mais xam naa ne Euh, da nga may baal instant bii ndax mi kii mi ngi may joxañ ma wan na ma waxtu bi li ci des bariwul su ko defee suñu émission bii di ñëw nii ah su ko defee ñu eggale ci ngëneel yi nga xamante ne moom moo war a ñëw macha allahu rabbi imam ñi ngi lay jéggalu mais dañu bëgg nga tënkal ñu rek su ko defee suñu émission bii di ñëw ñi nga xamante ne ñoo jàkkaarloo ñu dinañ gis ne dañuy eggale li xamante ne moom mooy tamxarit bi waaw incha allahu taala kon ñu mhm. def noonu rek ba émission bi ñëwaat mhm. ñu daal di ñu daal di àggale li jëm ci tamxarit bi mhm. mais cere yi moom faaleen yi ñoo ko <laughs> indi ci ñoo ko ci indi <laughs> tabaarakallah dëgg la comme après ñu développé ko <laughs> ci émission yi di ñëwaat incha allahu rabbi waa gis ngeen mbokk yéen ñi nga xamante ne yéen a jàkkaarloo ñun di ñu seetaan loolu nekkoon li nga xamante ne moom mooy at boo xamante ne nii dafay jeex imaam ñëwal nañu ci at buy jeex nit ki jullit bi en tant que jullit naka la war a càmbaree at buy jeex mais naka war a duggee ci at bu bees tamit macha allahu rabbi lépp ñëwal nañu ci euh, incha allahu rabbi yéen ñu jàkkaarloo ñun bu ngeen ñu toppee ci suñu émission bi di ñëwaat dinañ continuer waat waxaat leen li nga xamante ne moom mooy ngënee li ci nekk ak cere yiñ ciy togg ak taajaboon gi ñuy di ko tëgg beeg fecc mi lan la ci islam wax ak naka lañ ko war a dunde macha allahu rabbi ngeen àndoon ceeg seen mbokk sayda Aminata Jafal fii ci TFM religion in uridu ila al islaha mastataatum wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu amantu وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله